gis nga foofu bu yonent bi nekkoon koo xam ne bu taxawee di ñàngal rek fas kanamam kenn du ko ñeme dégg nga waaw kan moo koy jox xalaat su boobaa nag mën na def léeg-léeg ci xalaatu boppam dal di juum moo tax yàlla dimbale ko bi mu yaatalee boppam da doon déglu mbooleem kuy saxaabaam te loolu nag foor la xam nga ñu bëri dañoo jàpp ne soo jiitee ay nit waroo leen a déglu parce que booy wax ak ñoom lu bari dañ lay yeb dañ lay nangam non or que or que pourtant ñoo lay may réussite parce que waxtu wu nekk sooy échanger ak ñoom rek mooy tegtale ne kon yow sa produit mi ngi baax su ma demee ba jàpp ne Omar maa ko jiite waa Omar mu ne ah waa man lii de dama ci xalaatoon nangam loo ci xam Omar daal ne ah waaye kii de baax na moom de ndeysaan mi ngi may déglu sax ba di ma déglu ci liggéeyam waaw man de gisoon naa ne boo defee nii def nii merci ko Omar merci bravo mën nga continuer sebon waaw aji man daal damaa gisoon ni euh, émission bi ñu defoon keroog doon ko tourné est-ce que yaakaaroo ne war nañ ci mën a defaat beneen plateau boo xam ne tam man dama toog rek sama xel ñëw ci daal est-ce que gisoo ak nuñ ko war a defee très bien man de gis naa loolu te gis naa sax ne yow déjà non seulement yaa ngi may euh, nit ki mu jox la xalaat mais yaa ngi koy gën a sawarloo ci liggéey bi mu gën koo ñeme te loolu da leen di servir yéen ñëpp. bu ko defee xalaat yooyu ngay ngay échangeante ak moom moom muy def muy baax mooy ne yow yaa ngi tagg sa production mooy ne élément bi ngay waxal sa production la te yaa ngi koy tagg loolu lay definiir mais définirul contraire bi nga xam ne yow mi rey yaa ngi jàpp ne su ma ko defee rek maa ngi suufeel sam mbopp maa ngi dal sam bopp mbokk yi lii moo nekkoon macha allah wàll wi nga xam ne tànnoon nañ ko ak yéen ci waxtaanee ko ci wàllu doxalinu njiit ak la mu jiitee ma nga ca kër ga nag ci wàllu ménage ma nga ca bàyyi jaag njaboot ga ngalla ngalla ngir yàlla oyofal bul diis bul dëgëral dégg nga bu doom waxee nga wan ko ne ko man may bàyyi gëdd ko ramasser ko harceler ko su boobaa kan lay óolu ba mën a doon confidence am bu muy mën a échanger ku muy partager dégg nga bu bu doon yow itam sëriñ daara bi ci daara ji bi boo xamante ne mi ngi góor góorlu dégg nga nga xam ne mi ngi góor góorgóorlu tey mu juum rek nga ne ko mukk du fi amee ba xaw koo yóbbu laa laaxira déedéet du noonu déedéet du noonu yow mi nga xamante ne itam yaa nekk ci réew mi di jiite réew mi yore ñeeñ réew mi surtout ku jiite réew foofu laay jeexalee suma kàddu mbokk yi yow mii président yaa gën a gën a gën a yaatu ci doon ku tëddee njaaxanaay léeg-léeg mu am loo foog ci biir askan wi nga jiite am noo ko doxalee fekk njuumte wu rëy la ndax léeg-léeg buur aayut mais dagg ya ñooy aay ña lay wër ku ci nekk bu xamee ne fii la poosam di tooyee lay tooyal poosam rek ca lay dox ca lay wax du xool mukk luy arrangé ña ca gannaawam te loolu bés boo demee nag ba yàlla xañ la lam la denkoon keroog ngay door a xam nag ne ndekete yoo ci erreur laa nekkoon képp ku jiite am na lu la war ci nga ba xel ñi nga jiite rawatina nag njiitam réew jiitam réew moo gën a sonn la tege sa kaw yow kese rek antonoo ko moo tax faw nga partagé bu ko defee yàlla dimbale la dimbale it ña nga jiite mbokk yi ñu ngi teg foofu suñu baaraam di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew mii di Sénégal yàlla na yàlla itam defal ñu jàmm ba it activité yëpp delluwaat nam meloon ndax kat eh, gan gi nga xam ne moom dëgg-dëgg gan mustamel ni moom gan ngoo xam ne dangaa dikk rek ñu may la ñetti fan nga siisu ne man danaa fi def nam ma neexee googu gan moom kenn dootu ko dalal gan gii di corona yàlla nañu yàlla dàqal ñu ko te mu dem bu mu ñëwati mukk ko waaw yàlla na yàlla sorele ñëw moom ak lépp lu mu fi indi woon ci ay waaye yàlla na yàlla def itam ay yiw des fi ak barke ñeel ñu ñeel leen ñu ngi jéggalu ci kàddu yi lépp lu ci dëng suñu matadi la lu ci rafet sante nañ ko yàlla ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm équipe technique bi ñu àndal ñoom itam sonnuñ benn yoon ci wettaliku wante ak yéen jottal leen li nga xam ne moom la ñuy def ba ngeen mën cee jot eh, ñu ngi leen di gërëm Omar eh, yal na yàlla fay la fay itam Aji Diop fay itam ki nga xam ne moo di Muntaxa macha allah mi nga xam ne moom itam moo jiite liggéey bi li may wax ci njiit nag macha allah newul ci moom ndax moom xam nañ ko te xam nañ ci moom it ay jikko yu rafet ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla may ko te may ko it nu dalee ak nu mu dalalee may ko nu mu dalee ak nu mu dalalee ndax eh, booy doxal mbir. Euh, comme ni ma ko waxee sànq ñaan nga yàlla satisfaire ñi nga xam ne ñoom nga nekkal waaye ñi nga nekkal it ñaan nañ yàlla satisfaire la yow kon yàlla na yàlla def ñi fi nekk yëg seen bopp ci yëf yi loolu yàllaa koy def yàlla na ko yàlla def. géero géer ñaa ngi nii daal Muhammadu Rasulullah Abdallah baay ba Mustafa Amina yaayam xayrul anbiyaa lu waay jàpp na ba